Papa Mamadou Kane ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di sant di leen nuyu di nuyu seen auditeurs yi. yow ngay secrétaire général bu SYDELS SYDELS di syndicat démocratique euh, jàngalekat euh, enseignants libres du Sénégal tey ñu gis ne euh, école bi yëngu na jamono ji gis grève yi ci enseignants yi gis ko tamit ci ndaw yi tey lan moo waral ñu agsi fii. waaw comme ni nga ko waxee maa ngi lay di la gërëm mm-hmm. Sénégal yëngu école bi yëngu na secteur yëpp yëngatu nañu mhm. après le transport e la médecine c'est-à-dire les syndicats du côté de la santé des mhm. collectivités locales. Maintenant, c'est le, moment aujourd'hui pour les syndicats d'enseignants, nest pas, de se ñoom ñoo jug tey aussi pour laaj tamit seen ak ak gouvernement bi ak ay mhm. yelleef yoo xam ni dañ leen ko yoreel depuis parce que 2014 Euh, avec le gouvernement de ñoom it Abdoulaye Dione dañoo signé woon un accord global avec le gouvernement du Sénégal. Mhm. accord boo xam ni moo ñu doon may sàmmat point yëpp nga xam ne moom nañu at mhm. suñuy tiis ak suñuy yëpp ñu teg ko ci table bi. Mhm. ñu waxtaan seen ñoom ay fani fani fani fani fan ba daal di mujjee signé accord boo xam monsieur le ministre Mansour Sy boobu mu doon accords mooy accords réalisé réalisable tey jàngat nañu accords mën nañ ko def dinañ respecté engagement yëpp nañ ko def mm-hmm. ñu daal di kontaan ñëpp kontaan ñu daal di dem waaye 2014 boobu ba 2022 lu mm-hmm. ci bëri ci liñ ci waxoon ñoom defuñu ko lu mel ni wàllu formation jàngalekat yi toujours nga dégg jàngalekat yi ñu laaj formation même mm-hmm. formation à distance sax ñu koy laaj mënuñu ko soo dee xool aussi euh, paiement de rappel yi. de mhm. validation d' intégration d' avancement yi li ñu le woon ñun ñu bëri defuñu ko malgré que ñu ngi fay rappel mais li ñu fay dafa tuuti. Mhm. côté habitat état bi mu yore ay terrain ñu la a à Dakar à Kaolack à Louga à Tivaouane et j'en passe ba léegi 2014 ba léegi jotaguñu suñu suñu suñu suñu titre de propriété ak suñu plan. Mhm. yooyu yëpp mu nekk ay violation yoo xam ni du droit du travailleur la te violation warul am ci accord. accord bu ko signé dañ ko war a appliquer loolu convention yooyu wax te mm-hmm. convention yi Sénégal daf ko signé sur le plan international avec le BIT l'Organisation mm-hmm. du travail mm-hmm. code du travail aussi ak suñu constitution loolu la ñu jàngal lépp loo signé dañ ko war a def waaye tey ñu bëri ñu ngi naan jàngalekat yi ñoom dañoo bëgg xaalis dañuy laaj bi dañuy laaj la alors que ñu dara li ñu laaj dañ ko moom ñun ñoo ko ñun ñoo ko ñun ñoo ko signé woon ak ñoom ñoom mën nañ ko def donc waruñu diaboliser jàngalekat yi waruñu leen diviser dañ leen war a déglu ñu toog waxtaan li ñu war a jox ñu jox ko lu ñu mënul xam ni mënuñu ko ñun ñu xam ne ñoom aussi mënuñu ko ñu daal di koy différer yeneen année yi di ñëw parce que kenn mënul def lépp. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. alors mais lii nga xam ne nag moo indi crise bi mooy ñoom nanguñu waxtaan ak yeneen syndicats yi ñoom dañoo jël juróom-ñaari syndicats rek di waxtaan ak ñoom depuis ay ati ati at juróom-ñaari syndicats yooyu représenté wuñu jàngalekat jàngalekat yi lu ma juróom fukki syndicat ñoo leen représenté yoo xam dañoo signé accord 2014 bi donc bu ñuy wax ci accord bi ñëpp lañu war woo suñ ko deful nag tool day gën a bëri te problème bi du rek law kon tey daal bi ma la déggee lépp lu waral tey coow li mooy ñàkk respecté accord yi nga xam ne signé nañ ko syndicat d' enseignants yi. voilà loolu mu ngi ci maanaam loolu mu ngi ci parce que booy signé accord daa am ñaari ñaari pàcc. Mhm. mooy les points d'accord dañ ciy signé les points de désaccord dañ ciy signé maanaam li ngeen déggoo dañ ciy signé li ngeen déggoowul aussi dañ koy dañ mhm. li ngeen déggoo nag dañ ko war a appliqué parce que ñoom ñoo ne mën nañ ko ndax am nañ alal pour def ko mais li ñu déggoog ñoom ba léegi lu bëri defuñu ko mhm. ñaari points yi xam ne aussi déggoowuñ ko muy seen rémunération bi nga xam ne moom a ngi ni coow li aussi loolu dañ ci war a woo jàngalekat yëpp syndicat yëpp ñu daal ci waxtaan mhm. ñu def ay proposition mais war ñu jël ñaari syndicat rek yu mooy secondaire daal ñoom la ñuy waxtaanal pour ñoom ñu ay proposition proposition yooyu bu ñu ko defee ñoom ñoo ñoom nañ ko lekk nañ ko naan mais ñun duñ ko nangu. d'accord parce que uh-huh. euh, ñun. ñun suñu suñu proposition mooy point indiciaire bi nga xam ne moom moo fédéré tous les enseignants du Sénégal bu ñu ko laalee yokk ko mm-hmm. de dix vingt à trente pour cent dina mën a permettre jàngal ay am ay yokkuteef ci salaire am ba pare bu retraité dina ko yóbbaale. mais booy négocier ay indemnité yoo xam ne at ay avancement yoo xam ne at ay augmentation yoo xam ne boo retraité dañ ciy bind loolu mhm. euh, tey jii comme ni mu ko waxee euh, tout yaa ngi wax ba tudd benn cadre bi nga xam ne nee nga euh, ñoom dong la ñuy waxtaanal tey ndax jàpp nga ne cadre yooyu existé muy g ak G am na tey sens. cadre yooyu la. waaw am nañ sens parce que xam nga dañu nekk à l'heure de la globalisation et de la mondialisation. Mhm. l'union fait la force. Mhm. doole yi lu mu gën a bokk gën a gën a rek. Mhm. xeex di gën a a am njariñ ci ñoom. moo tax say syndicat yëpp daal créer ay cadres daal di fédérer. seen i force pour mën a wax d'une seule voix. comme ça état bi mën ñu déglu bu baax parce que mbooloo moom mooy doole. dëgg ba tax ñu def pàcc pàcc yooyu def ñu G20 ba nga xam ne li muy regroupé lu mat ñaar fukki syndicat ak juróom. Mm-hmm. ñuy toog di waxtaan di xalaat def ay proposition def ay contre proposition def ay plan d'action. Mm-hmm. gouvernement bi woo ñu ñu waxtaan waaye gouvernement boobu ba léegi wool waa G20 waa g rek lay waxal te G20 ëpp doole G7. Mm-hmm. te G7 jël di wax ak ñoom ay dañoo wax ay élection moo fa teg te élection yooyu kenn validé wu ko ba léegi. ministre du travail ba léegi jëleegul arrêté. daal di ne élection yi lii mooy résultat yi ñii lañ gagné ñii gagné nañ mhm. loolu amul ba léegi te tant que loolu amul rek ñëpp la ñu war a woo. Mhm. dans ce dans le même sens aussi ba ñu defee loolu ñu bëri ci G20 dañoo déposé woon des recours en pour wax élection yi mhm. am na ay anomalie. am na ay dysfonctionnement am na lu nekk. léegi loolu bañ ko yóbbee aussi cour d' appel. cour d' appel daal di woo daal di bu mag. président chambre yëpp toog ñoom ñu daal ne lii du ay élection lii kenn xamul lan la. Mhm. élection yi effectivement dañ ko dévoyé dañ ko war a seetaat. Mhm. alors ci biir loolu sax ñoom ñu daal ne ñun mosuñu gis sax ay ay ay dem élection. Mhm. élection si politique liggéeykat li ñu war a defal mooy ay enquête bu ñu defee enquête yi génne ko publier ko ku ne xam fa nga féete ak li ay nit. te loolu la ñu xalaat ni loolu mooy lu baax. kon daal da ngeen jàpp ne élection de représentativité yi dafa gën a xaajale enseignants yi. mais daf ñu gën a xaajale gën ñu féewale ba pare rek la wuñu dara ñoom ña fa nekk juróom at yaa ngi gis ñoom ñu fa nekk rek la wuñu dara parce que chaque jour grève am chaque jour revendication am chaque jour ñu def ay de commandé ay monitoring di waxtaan seen biir di dem Saly di ñëw di dem ci Dakar ci hôtel di waxtaan te jarul jarul dara pour jàngalkat yi moo tax ñu tant que woowuñu syndicat yi nga xam nekk ci g ak syndicat yi fi woon accord 2014 bi ñëpp ñu toog solution du mën a am. mais ndax yéen ñëpp bokk leen ay revendications maanaam la plupart du temps yu ci bëri yéen a ko niroo. mais maanaam la ñoo bokk ci protocole du 17 février 2014 ñun ñëpp. waaw protocole mandat pour toog parce que Sénégal dafa ratifié ay convention internationale ak code du travail bi li mu wax ak conseil bi mu wax képp ku am syndicat entreprise bi am syndicat da nga war a ñëw table des négociations waroo am bu jokka waroo am kii euh, euh, ostracisme di woo ñi di bàyyi ñi loolu amul fenn. mais ba ngeen accepté démb lii di élection de représentativité yi kon. mënoon ngeen accepté élection yooyu baaxul élection yooyu baaxul su baaxoon ba ñu gën a résultat yi dañ ciy ànd dem toog jàpp suñu ñàmbur mais dama ne résultat amul arrêté bi gën a résultat yi amul ba pare élection yi mu ngi ci cour d'appel ñu téye tant que cour d'appel prononcé wu ci kenn mënul wax quoi que ce ne ba ñoo war a wax la place des dañuy ou bien waruñu wax. d'accord kon ba fii monsieur Kane euh, yow xaaroo dara ci ndaje gu war a am diggante gouvernement ak enseignant bu dee ñoom ñëpp tooguñu ci table bi. très bien ndaje bi def ci alxames bi du jur dara du am benn résultat maa la ko wax tey te bu subaa mën nga ma waat ne ma kan nga waxoon dëgg la. Hmm. parce que loolu du am dara.

woo société civile woo parents d'élèves yi woo élèves yi ñun ñëpp ñu toog ak gouvernement am ñu jàmbar affaire yi lu mu gën a gaaw fii ak ñaari fan ñetti fan bu ñu ko defee génn ay résultats le lanceur prochaine ñëpp dem jàngale yi mu jeex. Mm-hmm. mais tant que defuñu ko problème bi day dem ba deux mille vingt trois deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq. tey ndax foogu ne yéen ñi syndicat d' yi yéen a tax ba mbir mi tey mu agsi fii ndax kat saa su nekk dañ leen di gis ngeen di grève bu weesoo 2020 bi nga xam ne Covid bi mu ngi fi woon at gu nekk daanaka dañ ci nemmeeku ay grève yu bëri euh, ca mujjantal ga dañuy gis ne waxtaan am na solution am na dañuy sauver école ndax foogu leen ne yéen tamit am ngeen ci part de responsabilité tey bu respect accords yi amul. ñooñu da ngay wax waa G7 ñoom ñooy dem kat ñoom ñooy wax gouvernement bi di si ñoom ñoom di di def ay mot de grève di lever ay mot ñoom ñoo yor entière responsabilité boobu fu AG7 boobu ñoom ngay waxal ba pare ba pare ah, sax. mais bu ñu levee fii tamit dañuy gis ne levé nañ tamit ci fee de. déedéet mais ñoom bu ñu levee xam nga ñoom lay concerné. examen day am composition day am te boobu syndicat yëpp a ciy ànd. waaw bien sûr c' normal parce que aussi nous sommes des républicains. bu fekkee ni par exemple dañoo xalaat dañu war def examen dañu war def ay évaluation dañu war a li am yëpp gouvernement bi ak g ñoom ñoo ko amal ñoom ñoo waa G waa ñoom ñoo grève wa G7 ñoom ñooy levé mot d'ordre de grève depuis cinq ans di def examen yoo xam ne awul yoon yoo xam ne xale yi waruñu leen matuñu ñu évaluer ñu évaluer leen loolu lépp ñoom ñoo ko war a assumer ñun suñu yoon nekku ci parce que ñun kenn woowuñu bu ñu woowoon laaj ñu suñu xalaat grève du am xale yi am quantum scolaire de mille deux cent heures wala neuf cent heures au minimum mën a compétir a ñu daal di jàll donc comme waa G7 nag ñoom ñoo jël engagement dañ ko assumer ñoom dañ ko assumer mais ñun suñu yoon nekku ci état bi tamit na ko assumer ñun suñu yoon nekku ci tant que woowu ñu ñun G20 ak yeneen syndicats yi jàmm am école bi benn dara du baax du ci am ça c'est clair mais jël ko inclusif kooku ñëpp xam nañ ko kooku moom wax ju yàqu la bara nga ne naam ne fa nous sommes dans un monde de dialogue nous sommes dans un monde de dialogue on doit dialoguer à tout point de vue waruñu mbedd kenn ñëpp lañu war a woo comme ni ko Dame Mbodj di waxee ci télé jaro yooyu wax nañ ba sonn voilà lu ma juróom at ñu ngi wax dégluwuñu ñoom ñu ngi échec mais ñu war a arrêté nag il est temps d'arrêter nga wax ci say biir wax sànq ba ñuy wax ci nasaraan wax nga ne grève yi du solution. Euh, lan nga jàpp ne mooy solution bi. solution bi moom mooy toog waxtaan la dialogue est incontournable madame dialogue bi moom la ñu war a teg ci kanamu ñëpp parce que lu ñu grève grève lu ñu wax wax wax dañuy toog autour d'une table même les les deux guerres ci autour d'une table la mujjee. mais en attendant waxtaan di am grève euh, jàpp euh, jàpp leen ne moom yéen mooy. arme bi ngeen am. déedéet man loolu arme bi ñu am de am na ñeneen arme. Ah. ah non mais toi aussi le mouvement syndical a beaucoup d'armes quand même. la grève n'est pas une panacée comme ni du loo moom la ñuy eh, yëkkandiku pour mun a am li bëgg déedéet. am na ñeneen yeneen arme yoo xam ñu ko téye denc waa g e. yi nga xam ne mën ngeen ko def te du ngeen paralyser système bi. mais mais voilà. mën nañ ko def forêt xale di jàng di am xam-xam di yokk ñu tamit ñu yokk lay jaajëfal bu baax a baax Papa Mamadou Kane ngay secrétaire général bu SIDEL. jërëjëf maa ngi leen di remercier ci euh, confiance ngeen am ci man ba invité ma ci seen rajo bi di gërëm seen auditeurs et auditrices yi di ñaan yàlla def jàmm ci école bi def ko ci Sénégal def ko ci àdduna bi yëpp ci barkeel bi sallallahu alayhi merci beaucoup monsieur Kane.